ñu daaneel ko fi depuis boobu ba léegi eh, ñoo ngi ci xeex bi ñooñu li ñu tax aussi ñu gën a woote tey ji mooy depuis pandémie bi ba léegi dañoo serein fii ay sénégalais lañ yoo xam ne dañoo góorgóorlu nekk fii si Sénégal wala ñu góorgóorlu nekk ci bitim réew góorgóorlu indi def fii seen alal ñu xëy xëy benn jo benn jour Diop si ñëw daaneel ko ne moo ko moom ngal la jóob si nañu ba te ngal la li président wax nañ ñu ko defal delloo suuf si góor góorgóorlu jam ñaar yi nga xam ne dañ fee jëloon seen alal def ko fi Il y a ak seen njaboot ñu ñëw benn jour rek ñu naaxasaay ko maire bi nag ñun amuñu lenn lu ñuy wax ak ñoom wax sant ñu leen gërëmuñu leen sant ñu leen xarabuñu leen gërëmuñu leen ñun daal ñoo ngi parce que dañ ñoo bàyyi ak suñu xeex dañ ñoo jox ba bàyyi bàyyi ñoo ak suñu xeex loolu ñu bàyyi ak suñu xeex nag ñoo koy jël ko ci loxoy président de la république di déglu nag kàddoom moo nañ ñu jox nañ ñu jox ñun ñu dëkk ci tranquillité ñu bañu Diop Sy nañu batte yàlla tax mu dem tali la ko la la ko song na dem tal loolu te bañu